أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi fi teew yépp noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu xaq te di leen baal xaq tey ñaan sunu borom boo leen jéggal nu dellu di santaat yàlla sunu borom bu baax cant ko am fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci mbaaxam ci yërmandeem ci tawfiixam ci ndimbalam ci sunu jëmm ak ci lu nu wër ñu teewoon fii na gëni daaw ci mbaaxam ak tawfiixam mu mayaat nu it nu fekke ko ren te du sunu njàmbaar am na ñu fi nekkaloon daaw te suñu borom moom na leen di ñaan yàlla dolli leen jéggal dolli leen yërmande di ca jiital sëriñ Mouhamadou Diop Sagna ak sëriñ Sadi Diop ak bokki taalibe yi daan àndal ci béréb bi yépp sunu borom dogal nu jiitu ji ak jullit ñépp di tuubal yàlla sunu borom ci mbooleem sunuy rëcc rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf te di ko ñaan mu nangul lu sunu yiw ca nam toll ci mbaaxam ak ci yërmandeem di ñaan xéewalam ak muccam yàlla ba mu dañ di dotteeku ci ngën gi mindéefu di yërmandeem ñeel bindéef yépp it di ngëneelam di njëggalam di siraatal mustaqim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem ñi nga xam ni it àndoon nañ ak moom gëm ko wóolu ko doyloo ko di jëfe ndigalam di teet ay tereem te dëggal ci joxe gi ñu ko jox seen jëmm ak seen alal ngir jëmm yàlla sunu borom ñu jaayante ak moom di ñaan moo matal mawlaana sayxina alxadim lépp lu mu tànn tey ak ëllëg ak mbooleem ñi ko doon jàppale ci liggéey bi mu doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ki tooge ab jataayam Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér te yéenéem yàlla defal ko ci tawfiq juy yokk zahiran wa batinan te nu ànd ko ak moom di dellu di ñaanal sunu sang ba Mawlana Cheikh Saalih Mbakke yàlla na yàlla dolli leeram ak tawféexam fa mu tëdd moom mi nga xamante ni bis bii bisub sëriñ Tuubaa la naka jekk mooy bis bi mu gënoon a fonk it ci ak dundam moom it la daan dundal fa njaareem di ci woo bokki taalibe bi yépp dundal ko it li jiitu njaareem muy ca Mbàkke Bawol bi mu jógee Mbàkke Kajoor rek ñëw Mbàkke Mbàkke Bawol njëkk muy sanc Daru Salaam ba ni muy sanc Tuubaa di fa dëkk juróom-ñaari at door faa jóge dem Mbàkke Bari Jolof ba ni suñ borom dogale nattu bi agsi ci kawam ba ni ñibbi ñibbi siwaate bis boobu la du dundal ba niñ ko mujjee gisee mu dëkkaale ji ak boromam subhaanahu wa taala bis bii la doon dundal day mel ni nag ñu bari bu ñuy xool ak a xalaat dañuy defe ni bis bi dañ koy gannaawal ci yoonu murit fekk déedéet moo doonoon bisub sëñ Tuubaa bi mu daan màggal ci ak nekkam bis bii nga xamante ni moom lañ weesu te ñu ci ndokkeel bokki taalibe yëpp ak jullit ñëpp it ak réew mi yëpp it muy màggal digle woon na ko ci ak nekkam waaye nag kenn wootewu ko woon ndax nekk na fi ba jóge fi kenn mësu ko woote dañ ko daan def saa su bis bi agsee rek ku ci ne defee ko këram Cheikh Mouhamadul Moustapha bi ñu yóbbee sëriñ bi njareem it bis boo bii sëriñ bi ñibbee Touba la doon màggal bi mu jëlee sëriñ bi njareem yóbbu ko Touba bis boobu la doon màggal mooy màggal bu njëkk gi bi Cheikh Mouhamadul Fadal toogee nag ci la woote bis bii muy bisu màggal Touba ñu di ko woote ba nga xamante ni mooy bis bi nga xamante ni moom lañ gën a xame yoon wi fekk na nag bis bii di guddi gii sëriñ bi jiitalutoon lenn teg ko ci ndax léppam yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaye ki ko gën a fésal dëgg it mooy sëriñ Saalih Mbakke moo ko yaatal dëgg-dëgg ba joxe ci ndigal tam lu mu doon dund it te loolu ku doon dund ak moom it xam nga ko daaraam yi mu amoon yépp daara ju ci ne su gàmm masaa jot la wër tund wu wépp fa la ñuy gàmmu see ba ni mu nekkee bi mu toogee jataayub sëriñ bi ci la ko gën a yaatal ba mu mel nii mu mel di doxee nii muy doxee ñuy ñaanal ki toogee ab jataayam sëriñ Cheikh yàlla na yàlla guddal aw fanam te wéral aw yaramam te dolli ko tawfiix ak taysiir bu ñuy wax nag guddi màggal guddik yonent bi nga xam ne ci la feeñe jamono day mel ni dañuy wax ne yërmande feeñ na tawféex feeñ na ngëneel feeñ na yoonu jëm ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala it feeñ na kon bu jullit ñi dajee di ko màggal la ci ëpp solo te ëpp ca njariñ nu bokk xam ne dajewuñu rek ngir ay reer dajewuñu rek ngir daje nii rek déedéet waaye dafa am lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi te loolu jamono bu ne doomu aadama yi di ko soxla mooy jikko ju rafet ndax mooy tax sunu dundin mën a jag mooy tax sunu dundin mën a rafet ndax yërmande jooju ñuy wax ci jëmmam yaakaar naa ni lim nu indil la ca gën a wér gën a sax mooy jikko ju rafet jikko ju rafet nag ku ne xam na ni bu ko nun ñëpp amee yërmande day daldi fees jël ci àdduna bi ndax jikko ju rafet la ca njëkk mooy li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko jullit ñëpp wala nga ne nga bëggal ko bindee fi yëpp nit ki su fekkente ne li mu bëggal boppam bëggal na ko ñëpp lépp lu natt ci boppam muy mbubb moo xamante ni bu ko solee du jekk mu bañ koo solal kenn ci wax ak jëf ak melo yaakaar naa ne yërmaande day daal di am su fekkente ni it nit ki ni nga bëgg ñu di ko jëflanteeg yow it yaa ngi koy jëflanteeg bindee fi yëpp yaakaar naa ni yërmaande day daal di tasaaroo su fekkente ni koo waxal la nga ko wax nga bëgg mu sàmm ko wala la ngeen waxante nga bëgg mu sàmm ko ci pas-pas bu ngeen amante ci seen diggante wala lu ngeen war a jëflante ci seen diggante nit ki war kaa sàmm kàddoom yaakaar naa ne su fekkente ni jullit bu ne wala bindeef mu ne lam séq nit ci ay wax bu fekkente ni ma ngi koy sàmm te wóoru ca dara la nga ko dénk ci kóoluteef mu dencal la ko te wóoru ca dara loolu yërmande lay doon ci xeet yépp kon guddi gii suñ fi bokkoo daje di ay jullit dañoo war a fexe donte benn tomb lañ ciy jël buñ fi jógee bu subaa ñu tàmbali ko mu mu di muy lu nuy jariñ ñu di ko jariñoo ci suñu diggante ba yërmande jooj yi mën a law ci suñu diggante kon bu ñu fi dajee kenn ku ci nekk dafa war a taataan baat bu ñu fi wax ci wàllu jikko ju rafet nga xamante ni moo tax sunu borom doon yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam dale ko ci suñu maam aadama ndax bu fitna feeñee ci kaw suuf ñaari doomam la fitna ja lu ko jur kañaan kon ñun ñëpp war na noo fexe ba rey kañaan ci suñu biir ba lépp lu suñu borom defal ab jaamam loola neex nu muy sunu mbégte muy sunu kontaante ba mel ni kooka la mu ko defal bu nu suñu borom defaloon loola nañ cay bégee nañ cay kontaane nañ cay sant beneen jaam bu mu defal loola it nga sant ca bég ca kontaan ca mu mel ni yow la ko defal nga xamante ni soo fi jógee kat nga làmbaat sab xol soo soo soo gisee ni suñu borom defal na benn mbindéef lenn nga am ca benn ñag di ñagu xol moo xam taar bu mu ko defal la moo xam am am bu mu ko defal la moo xam daraja bu mu ko defal la wala cër bu mu ko man di jox nga di ca am dara loo naan kii daal ni mel néexuma wala ni muy jëfe néexuma wala li ko yàlla defal néexuma nga xamante ni donte waxoo ko ci saw làmmiñ mi ngi ci sa biir xol nga fexe ba jàngoro jooj yi nga teqalikoo ak moom xam ni day gaañ jàngoroy kañaan day gaañ te ngaañ lay doon loo xamante ni nag fekk mi ngi ci yow ngaañ loo lay doon teqalikoo ak moom mukk bokk na ci ñi nga xamante ni jàpp nañ ni seeni nelaw du mën a neex mukk mukk mukk mukk ki nga xamante ni yàlla defal ab jaamam néexu la tey waxtu wala yaa ngi xëy di fexe nu may def ba lii yàlla def ci moom mu deñ doo mën a nelaw guddi mukk te foo xëyee it boo loo mën di xalaat ci guddi gi yaakaar ni su ma ko defee lii kii yor wala nii ko suñ borom cëral mën naa ca dara soo xëyee da nga gis loola yokk kon kañaan googu yi nga xamante ni muy jikko ju rafet nga xam ne moom la yonent yi doon jàngale te kañaan njëkk cee feeñ ci biir doomu aadama yi ba tax suñ borom suñ borom yónni suñ maam aadama ci njabootam googu wan na leen ni kat kañaan dafay gaañ ki añaan te mën naa jur fitna yi ci kaw suuf ndax fitna yi judd ci kaw suuf yi ci ëpp kañaan rek lay doon loolee nag yonent yi dañuñu ku dikk bay ca sawaar ku dikk bay ca sawaar ba ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñe ci gi guddi wax ni innama buhistu li utammima makaarimal axlaaq kon bu ñu fi dajee nun war nañuy làmb suñu xol te nit dafay seet xolam ab jullit doo dox nii rek nga xam ne da ngay dund dundinu jullit laa waaye ci kaw aada rek lay doon samay waajur ay jullit lan kon ab jullit laa samay maam ay jullit lan comme kon ab jullit laa waaye nag doo xëy mukk nemmeeku sa xol li tax ak jullit mën a wér ci jullit bi ndax yooyu mi ngi ci yow wala déet lii gàllankoor ba nit ki ak njullitam du wér ndax loola mi ngi ci yow wala déet lii tax ak njullit mat ndax mi ngi ci yow wala déet te loolu foo xëyee war di góorgóorlu lay tax sa njullit mat nga di ko yokk lay sabab sa njullit dara di ca wàññeeku nga di ko yokk kon la ca jiitu mooy ñàkk añaan la ca jiitu mooy li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko jullit ñëpp ndax yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni kenn ci yéen ak ngëmam du mat ndaram li mu bëggal boppam daf koo bëggal jullit ñëpp kon ku ci ne seetal ba xam yow ni nga bëggee tawfiq ni nga bëggee jàmm ni nga bëggee xéewal ni nga bëggee daraja ni nga bëggee am-am yooyu ngay bëgg yëpp yëpp yëpp yëpp ndax ni nga ko bëggale sa bopp noonu nga ko bëggale keneen nga di ca def loo man ndax am na ñooñu kat lañ bëggal seen bopp feneen fu ñu ko gis jàpp ni kooko yelloowu ko ñoom ñoo ko yelloo loolu du ak njullit kon ak njullit ku ci ne war ngay tàggataat sa bopp di seetaat sa bopp ngir jëmmi suñu borom kon bu ñu fi bokkee daje te jataay bi xaw a xat tey ndax ku ne xam na ne ñoo ngi jëm ci ay liggéey waaye benn jikko rek bu ñu ko jëlee kenn ku ci nekk fexe koo nafar ci sa bopp te def ci yitte tàmbalee ko ci sama jëmm yaakaar naa ñun ñëpp loola bu ñu ko jàppee danañ ca mën a am jariñu yaatoo yaatoo kon yonent bi li tax suñu borom yónni ko wàcce ko ci kaw suuf sallallahu alayhi wa sallam mooy mu mot li jikko yi rafet yi kon buñ dajee fii ñu jóge ci gox yi soran yu fasanti ko te gox yi soree lool it te ku ne xam na ne jamono ji ñu am ak wér bëriwut yitte yi bari na kon buñ bàyyee suñu yitte yépp ngir yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir daje bala caa njariña mën a juddoo buñ jógee ca daje ba kenn ku ci nekk làmbaat boppam yëg ni lii am na lu ma ci dolli ko loolay tax ndaje ma am solo ndax bis yépp kat loolu mooy li ko waral dolliku ci sunu diine dolliku ci sunu dundinu adduna wax ne danañu amal njariñ ñu man caa am yóbbal ëllëg yomal xiyaam kon jullit la war a njëkk ci moom mooy la mbëggal boppam mu bëggal ko jullit ñëpp soo déggee ñu naan guddi gii kat ku ko dundal liñ ciy doyale ci aw yiw yépp tax ñu di ko feete mooy tawféex jim ci jële mooy feeñu ngën gi bindeef waaye feeñ gi ngir lan la mooy ngir jariñ xeet wi xeet wi mënuñoo jariñu mukk ci ludut ku ci ne li nga bëggal sa bopp da nga koo bëggal sa morom loolu mooy tax sunu dundin mën a dal sunu dundin mën a teey di jéggalante ak a jéllalante ak it yor xol yu ubbeeku kenn ku ci nekk nga am tolérance ci sa morom fitna boo xoolee waxtu wuñ xëyee fitna day day yeewu ci diggante jullit ñi te moo ne ku ci ne la nga ne man nga caa ne ku ci ne la nga la la doyit man nga caa jàpp keneen lam doyit la ko doy nga bàyyi ko ca waaye kenn ku ci nekk fi mu ne ci jullit ñi day jàpp ni lam nekk wér la keneen nekk dara wérut te loolu buntu fitna la nit ñi mën nañoo wuute ci ay pas-pas mën nañoo wuute ci diggiinu diine waaye du leen taxa noonoo waaye nag léegi ñi ci ëpp koo wuuteel aw déggin ci diine wala ngeen wuute fu ngeen di naane la cay teg mooy tege ak noonoo ndax da ngay jàpp ni da ngay daal di xatal mbir ma lool jàpp ni yàlla moom ku nekkut fii rek mënoo ko amee fenn yàlla ëpp na loolu nun ñëpp noo ngi jan noo ngi jariñu ci taw nun ñëpp noo ngi jariñu ci jant bi nun ñëpp noo ngi jariñu ci guddi ak bëccëg nun ñëpp noo ngi jariñu ci oxygène bi nga xamante ni bindeef yépp ñoo ko bokk te kenn yàqalu ci sa morom dara kon nag ku bëgg a jàpp ni kuréel bii lañ nekk rek mooy dëgg ba ca des lañ nekk du dëgg da ngay daal di indi fitna da ngay daal di indi njuumte ndax boo xoolee jamono yi yépp kenn ku ci nekk ci jullit ñi yaa ngi rawa yaa ngi jàpp ni yow yaay dundu alxuraan ak sunna ñépp nag ñoo ci yam kuréel yépp benn kuréel jàpput ni dundut alxuraan ak sunna ñépp ku ci ne yaakaar nga ne yaay dund alxuraan ak sunna wuute googu musu fee jóg ba lislaam tàmbalee la wuute am te wuute googu it dañ koy dund ba keroog adduna di tukki ndax diine kenn ku ci nekk ak nam koy interpréter na nam koy déggee ak nam koy gisee ak nam koy jottalee boo xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi bàyyi ko luñ ci teg Seydina Abu Bakrin moo toog te li gën a jafe nag tama di ko wax waxtu wu ne mooy xam dëgg ak jàpp dëgg lu li gën a jafe mooy loolu ndax fi mu ne ku ci ne jàpp nga ni yaa am dëgg ku ci ne jàpp nga ni li nga nekk wér la kenn ka ci nekk wérul ndax ku ci ne loolu mooy sa pas-pas kenn ku ci nekk tey jàpp nga ne yow fa nga féete ku féetewut foofa jàppagut ak dëgg fa nga nekk rek fa la dëgg féete bu dee ci ci tarixa yi la turux turux suufiye yi kenn ku ci nekk yaakaar nga ni fa nga ne moom fa la mbir mépp nekk ku ci ne yaa ngay wax di gaarawaale sa morom kee di wax di gaarawaale morom ma wuute gi wala yasaloona muxtalifi nit ñi duñ dañ di wuute ba keroog adduna di tukki ku xam loolu nag fi ngay daw gën a jëm ak it fa mbir ma di ëppe solo mooy ñi gën a rafet jikko ki gën a rafet jikko ki gën a rafet jikko mooy kan mooy ki nga xam ni du lor benn jullit bu mën a doon mbindeef sax du ko lor ci kàddoom du ko lor ci waxam du ko lor ci jëfam du ko lor ci meloom foofu de ku fi nekk na la wóor ni moom yaa ngi ci aw yoon mooy jikko ju rafet ndax moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam dikk ci kaw suuf yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi bàyyi koo wuute daal nay tàkk ci biir jullit ñi wuute googu kenn ku ci nekk tey nii mu xewe tey kuréel bu ci ne jàpp ne yaa nekk ci alquran ak sunna noone it na la demee woon léegi lañ tudde moo xam turux suufi yi nga tudde suufi yi wala ñee di tudd ay salafiste wala ñee di tudd ay ibaadu kenn ku ci nekk ak na ngay pratiquer diine mosu fee jóg xëy na tur yi ay tur moo fi nekk rek yu yees mel ni tey mouvement bii nga tudde ko lii mouvement bee nga tudde ko lee kuréel bee nekk fee tudde seen bopp nangam yooyu rek la waaye jëmmi wuute gi mosu fee jóg la am solo nag moo di kenn ku ci nekk na mu déggee mu jàpp ko ka nga yaakaar ni nekkut ci dëgg nga xam na nga koy wàññee ci yar ci teggin ak ci tolérance bu mat sëkk li ma ne léegi jàpp ak dëgg lu jafe la ndax diine wuute yàgg na ci te ku ci ne it sa position rek ngay défendre yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu fi bàyyi ko Seydina Abuu Bakrin Siddiq toog ñu toog tuuti Seydina Omar toog dañ ko rey Seydina Ousmane dañ ko rey Seydina Aliou dañ ko rey Seydina Ousmane moo ne ñi ko rey dañoo am luñ interprété nu nu ñu nu ñu dégge diine dégge am nuñ dégge alxuraan am nuñ dégge waxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba jàpp ni Seydina Ousmane mii am na lu lu lu mu wàcc ñoom ñu defe ne dañ ko war a kurise ñoom ñoo xam loolu lu mu doon boo xoolee Seydina Aliou bi mu toogee ci ni ma lay wax dégginu diine nit ñi duñ dañ ci wuute kon bu wuute amee ku ne rek na am tolérance ci morom ma danay am solo lool moo gën di waxi dënn moo gën di wax loo xam ne day jur fitna ci diggante jullit ñi ndax diine fitna taxu koo jóg jàmm ko tax a jóg kon kenn ku ci nekk luy jur jàmm jooj yi daf ko war di saxal di ko sabablu ci waxam ak jëfam ak meloom Seydina Ali bi mu toogee boo xoolee xare bi mu njëkk a xare ni ma lay ni may waxee ni nit ñi mosu ñoo den ji wuute ni ñuy dégg diine mosu ñee den di ci wuute am na genn wuute nag boo xamante ni bu fa àggee ci wax waxin wu dëgër ngir weddi ñoom diw la ñu nekk ak contre ñoom diw la ñu nekk dafay jur fitna te dama ni diine fitna taxu koo jóg jàmm ko tax a jóg dégg nga Seydina Ali ku ne xam ne daje na ci xare ak Sayyidatuna Aïsa radiyallahu taala radiyallahu taala anha lu ko waral nit ñi interprété diine moom wute rek te Sayyidatuna Aïsa boobee ànd naag Subayr ànd naag Talha ñoom ña ñoom ñaar ñëpp ñi ngi bokk ci xasaratul mubassara bil janna Seydina Ali it am na ñum àndal ci ay saxaabi yi ba àgg nañ ci ne ko waaw ndax diw ak diw danañ daje ci lu dul dëgg moom ñi ànd ak Seydina Ali am na ci ñu ko laaj laaj ba muy leen da ngeen di xam dëgg ba noppi door a xam ña ca nekk ak ña ca nekkut moo ne moom noonu mu waxee it ña nekk fee noonu la ñu defaana dara la ñu nekk ñoom it ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne jàpp leen seen genn wàllu diine ci soxna sii kii mu ni man maay dëkkub xam-xam kii mooy bunt bi muy Seydina Ali moo ne ñoom ñaar jàkkaarloo nañ ba dënn jóg ba xare jóg ba ay bakkan des ca kon ku ne xam na ne ñu nekkoon ci camp bii niñ doon interpréter alquran ak waxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam wuute naa ña ca camp bële ñële it niñ doon interpréter alquran ak sunna wuute naa ñi ci camp bii ndax jullit moom ku ne xam na ne bu jullit ŋàbbee xeej mbaa mu ŋa ŋàbbu fet mbaa mu ŋàbbu jëlsi di dem ci moroomu jullitam ngir faat ba kanam jàpp na ni kookee génn na ci islaam te nam koy interpréter moom mooy tax lii ñuy wax takfiir yàgg na fi am na kuréel yooyu tey fii ne lii ñuy def dañuy takfiir dañuy jàpp ni lii ñuy def bi daala moo ne jataay bu mel nii day fu ñu ko defee di ca wax jàmm di ca wax jikko jullit ñi waxtu wu ne loolu dañ koo soxla ak nuñ mën a tuddee jataay ba buñ doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daawu ko def bare na loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daawu ko def te noo ngi koy def ndax jamono ni mu tëdd moo tax dégg nga kon ku ne xam na ne kee soxna si yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ànd naa ak ñaari nit mbooloo sax te mbooloo ma nga ràññee ca Talha ak Subayr bokk ci xasaratu basar bil janna kii tamit noonu moo ne bañ jógee ci loolu yi ku ne xam na ne Seydina Ali daje na ak Muawiya ibn Abi Sufyan te boobee xare boobu Muawiya ay junni junni junni nit ñu toppoon ci gannaawam faatu nañ Seydina Ali ay junni junni junni nit ñu toppoon ci gannaawam faatu nañ lu ko waral jullit ni ma waxee léegi bu jëlee xeej jël jeesi jël fet jëm ci kaw bokkum jullitam nam jàppe alxuraan ak nam ko déggee jàpp na ni kii dafa wàcc yoon kon deretam dagan na alalam dagan na ñaari kuréel yépp noonu lañ déggee woon moo ne lislaam musta nekk di dox ci loolu ba fii nu toog di ko waxtaane moo ne ñaari kuréel yooyu dem nañ bay ñett Omar ibnul Xaas ma ñi ko topp Muawiya ibn Abi Sufyaan ñi ko topp ñi topp Seydina Ali beneen kuréel génn ñu ni wax ñu ni wax alxawaarij ñu ne ñett ñi ñépp dañ leen di éliminer ñi nekk ci bopp yooyu jullit ñi seet ku leen doy ñu tànn ñu yebal seen ñetti nit ne dañ leen di tëru bu ñuy julli fajar bu ñuy julli ci fajar Omar ibn al-Xaas dañoo wax ni dafa amoon yaram ba ki ko dóor wala ki ko jam jam bi jeexitul ci moom ba mën a yóbbu bakkanam Muawiya ibn Abi Sufyaan julli juutoon ca fajar googa Seydina Aliyu moom lañ ca lor moo ca des te moo ne Seydina Ali bi muy dajeek Muawiya moom yi bi ñu demee ba xeex bi metti ba metti ba metti ba metti ñi ànd ak Muawiya ibn Abi Sufyaan dañoo yëkkati ci seeni xeej ay kaamil alxuraan ne leen nañ àtte woo ci alxuraan ak sunna général de guerre yi ànd ak Seydina Ali bi ñu ñëwee wax ko ko dañu leen loolu ay pexe la bu leen nangu loolu lépp ci li may bëgg a misaal rek mooy nit ñi ni ñuy interpréter l'islam munuñ cee bokk aw gisin ba keroog adduna di tukki kon ku ne la nga téye lala doy nga téye ko jàpp ko boo gisee ni kii sama mbokkum jullit la waaye xëy na dafa réer na nga koy bëgg a wàññee na ànd ak teggin wad'u ila sabila rabbika bil hikma wal mawidati al hasana loolu dafa am solo nga wàññi ko ci wàññin wu teey ci wàññin wu dal waaye fekk ab jullit bu réeree ba mel ni manit dafa nga jàpp nga jàpp ni dafa réer ba mel ni manit soo ko bëggee wàññi bul ko wàññi ci fitna boo ko bëggee wàññi ci fitna ci kaddu gu dëgër ak kaddu gu ñagas fitna doo nga lay jur nit soo ko bëggee wàññi da nga koy gën a rafet jikko te amee xam-xam bu leer te li may wax waxtu ne xam-xam bu leer it jafe na lu am la de waaye yombut ndax fi ne lislaam fitna yooyu mu doon dund nga xam ne ku ci ne dafa am lu mu dégg diine tax na ñoom ñooñu ñëpp ku ci ne yaa ngi doon wax ne la ngay wax da nga ko doon défendre ak la nga doon def di ko tibbee ci alxuraan di ko tibbee ci wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñee léeg-léeg ñu amee loo xamante ni ñii nekk fii dañ naan lii wér na ak wérut ñee nekk fenn lii ndax wér na ak wérut te lislaam bi mu doxee tuuti ak nguur daf cee taxaw ci biir nguur gi te buur li ëpp liy défendre nguuram lay gën a wax moom lay gën a def borom xam-xam yi muy utiliser it ñoom it ni ñuy ni ñuy interpréter alquran ak waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy dëppale ak li buur bëgg te lislaam buur yooyu dund na ay seekali seekali seekali Banu Umayya xabaas yoon yi Faatimi yoon yi te kenn ku ci dikk ak say borom xam-xam yu taxaw mën nañu indi nit fi na mën naa indi lu wérut nga jàpp ni lu wér la mën naa bàyyi lu wér wala mu wax loo xam ne yow jàpp nga ni wérut te fekk lu wér la mu wax loo xam ne jàpp nga ni wér na te fekk na wérut loolu lépp day am ndax boo xoolee ci misaal bi may joxe Omar ibn Abdul Hasis bi mu nekkee xalifa te yéegal ko ci xaamisu xulafaa rasidun bi mu ñëwee mbooleem mosquée yi ci boobu jamono mosquée yépp li ñuy tëje seeni xutuba mooy ŋàññ Seydina Aliou ak ñi ànd ak moom te loolu booba nit ñi ñi ngi ko doon dund gëm ko ba bi ko xamar teree teg fa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sant yàlla nit ñi dañoo wax naan xomar bàyyi na sunna da ngay seet loolu xomar Omar Abdul Aziz bàyyi na sunna ndax loola xëy na ñoom ñi leen doon jox diine ci anam googu lañ leen ko doon joxe moo ne xëy na beneen camp ba ca des it ñoom itamit am na lu ñuy noo xamante ni noonu la ñuy doxalee. ba tax na diine jikko la li li ci ëpp solo it mooy loolu mooy tax fitna it mi ngi ciy bëgg a juddu. fitna it mu tëj dañ ci di ci juddu ak di ci ne waaye nag yaakaar naa ne fitna képp koo xamante ni borom moom xel nga tey nit di wax aw nit di la déglu deel invité ci say wax lenn loo xamante ni mën naa indi benn jafañ-jafañ ci diggante jullit ñi nit nag sañ ngaa wax ci alxuraan kem na nga ko déggee sañ ngaa wax ci waxi yonente bi sallallahu alayhi wasallam kem ni nga ko déggee nga waaye nga bàyyi keneen it mu wax it kem na mu ko déggee yow it nga dund li la doy nga bàyyi keneen nit mu dund li ko doy waaye léeg-léeg nga gis koo xamante ni ah man de ci yoon wii laa nekkoon dem naa ba mu yàgg maa nga ca leneen nga ni man dama réeroon ñenn ca yoon wi ñëpp dañoo réer loolu du ni day jur fitna rek yow boo jàppee ni gindiku nga it boo bëggee jubbanti nit ñi jubbanti leen ci yar ak teggin tey wax xam-xam te bañ a wax loo xamante ni day yee fitna kon jullit ñi li ñu war a gën a yittewoo ñun ñëpp mooy góor góorlu ci jikko ju rafet lu am solo la ñi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tudde ahlu suufiya boo seetloo ba seetloo ñi niy roy téere yiñ bind ñu war koo jàng war koo jëfe nun ñi ci ëpp jànguñu loola jëfewuñu loola xamuñu ko sax ñu ëpp ci nun folklore la ñuy gën a dund ka diine bu dee dëgg rek la ñuy waxante ndax ñu ëpp ci nun jànguñu yërunu li ma doon wax léegi ci histoire it soo xoolee tey bu yàggul rek sëriñ Touba tey bari na lu ñuy nett li ci moom lool mu siiw lool te dara amu ci te ndaw yu bari dañ koy gëm mag ñu bari sax dañ koy gëm ndax jàng ba ràññee jullit ñëpp aguñ ca ndax nun ñu ci bari dañ naan ay taalibe sëriñ Touba lañ waaye ndax sëriñ Touba li mu bind bàyyi fi ñoo ngi yittewu di ko gëstu ak di ko topp wala déet nun ñi ci ëpp kay dañuy topp waxtaankat yi rek ca la ñuy nit li ca la ñuy wax ca la ñuy jàpp te ki nga xamante ni kii wax waxkat bi nga xamante ni suy wax bu noppee du am dépasse bu suba ah la muy wax mat naa tey de mat naa tey de ki nga xamante ni bu li muy wax moom heure bu noppee dépasse bu suba du ko am te léegi nit ñi bëgg lu yomb bëgg lu yomb bëgg lu yomb bëgg lu yomb ba kenn mënu koo misaal da ngay gis koo xamante ni tey day tàmbali di wax fii rek nit ña jël ko yanu ko duutul xëy duutul gont ki ki bàyyi xëy liggéey yi bàyyi gont liggéey yi fas yéene di dund ci kàddoom kooku ne la wóor ni lam cay wax la ca ëpp du ca bàyyi xel la cay dëgg ak lu ci du dëgg te la ca ëpp yi dana sos ay wax di ko teg te nit ñi kat dañoo ñi may wax lu du dëgg ñi may wax lu du dëgg ñi may wax lu du dëgg ba àgg ci li ñuy wax ci du dëgg sax dañ koy far bëgg a gëm ñoom ñu koy wax te loolu lu ma ta bàyyi xel nit li nu war mooy jàng jéem a xam suñu diine te léegi dama koy wax waxtu ne xam diine yomb na lool temps bi ñuy def ci whatsapp bi di ko def ci tiktok bi di ko def ci youtube bi di ko def ci facebook bi ku ko ci def am xam-xam bu leer bu set wecc ndax xeetu xam-xam boo soxla firi nañ ko ci làkk wolof wala ci yeneen làkk yi temps bi ngay def tàmbali ñi nga xamante ni am nañ connexion bu dig bëccëg ñu ngi ci seen connexion ñu ko amul ña ngi koy dàkk minuit minuit suuf day seddu guy dara du la tànqal dara du la fat boo ca taaloon tey sa youtube yaa ngi dégg wala nga ne ci facebook bi da nga ca jëlee ay xam-xam boo jëlee masaalik ma da nga ko ci diglu ba mu jeex tàkk mën nga koy jël par par aw xët boo jëloon wenn xët képp ci masaalik da nga dégg ko la ko firi nga jënd téere ba dugg ci sa biirub néeg man ngaa tàmbalee ci tasawudu si xaar man ngaa ñëw ci jawharu nafis man ngaa dem ci tasawudu subaan téere yépp man ngaa ne ci sa biirub néeg tëju dem ba mën a doon imaam di gàgganti nit ñi te boo ko ngay xam na ngay gàgganti ko ñun ñépp a man loolu waaye nañ na ko fa yéen ba di topp la gën a yomb rek di topp ña lay wax ni la sëñ bi defar na lépp lépp baax na déedéet sëñ bi daa bëgg ñu jàng suñu diine sëriñ bi dafa bëgg ñu xam suñu diine sëriñ bi dafa bëgg ñu am jikko yi rafet te loolee munta nekk ci lu dul nga jàng ak ñu yar la ci li ëpp ci nu nit folklore bi yóbbaale nanu boo xoolee bis bii nu weesu muy bisu màggal bi xeeti màggalin wu ne ngay gis da nga gis ñoo xamante ni la leen war lépp ci bis bi def nañ ko ni ko sëñ Tuubaa diglee ci bernde yi ci jàng alxuraan ci jàng xasida ak ci fàttalante ci suñ digg ak suñu boroom ak di fàttale suñu diggante ak suñu moroom nan lañ war a taxawoo suñuy wayjur nan lañ leen war a jàppe nan lañ leen war a jàppalee nan lañ leen war a wormaale nan lañ war a taxawoo suñuy soxna ci dimbali leen ci yërëm yéen ci yiir leen te di leen jéggale ko jëllale nan lañ war a taxawoo suñuy borom kër ci ne ci seen i digal tey teet seen i tere nan nga war a rafetale sa diggante ak say dëkkandoo yi nga nekkal ba doo leen lor ci sa wax ci sa jëf ci sa melo nan nga war a jëflanteeg nit ñi jëflanteen woo xamante ni kem ni nga bëgg ñu di ko jëflanteeg yow noonu nga koy jëflanteeg ñoom am nañu da màggale nañ ko noonu ba seeni jataay képp ku fa teew boo fa jógee da nga am ab yóbbal bu doy sëkk ba keroog màggal di delsi wala ngeen di dajawaat waaye am na ci ñoo xamante ni nag lañ ko doon màggale ah man day wax dëgg yàlla xawma ko ndax da ngay gis kilifa goog ay tamaa ko wër loolu ñun ñu ci bari gis nañ ko man day tama ca la ma ko xamoon mooy yeneen i géew waaye xawma ko woon ci géewu màggal te damay wax ni kilifa yiy wax loolu mën nañ cee duut baaraam luñ mën a duut baaraam la ndax ku ci ne la muy def lépp mi ngi ci tiktok bi lépp mi ngi ci facebook bi lépp mi ngi ci youtube bi te kilifa bu nu gis ngay am loo xamante ay dënd la wala ay tamala góor ña ak jigéen ña di ca jaxasoo di fecc ak a def leneen loolu kilifa yi war nañ bu màggal weesoo ñuy xoolaat réseaux sociaux yi yépp am commission boo xamante ni li ñu amee commission boo xam ne dañoo yore wàllu màggal gi am commission bi nga xamante ni tey wàllu mbas mi ñoom ñoo koy saytu bi màggal gi jub def nañ déclaration bi màggal gi jeexee def nañ déclaration boo xamante dañuy xam ne mbas mi bi ñuy bëgg a màggal fii la yemoon bi màggal gi jeexee fii la yem gis nañ ni amul benn effet bu mu ci def lu may ak wàcce ko sax la def ngir ñaan yi ak tawféexi sëriñ bi yaakaar naa ni commission yooyu ni nu amee waroon naa am comité boo xamante ni la ñuy yore yi mooy su màggal gi weesoo ñuy wër lool bu ñu mënta wër ci dëkk bi yépp it di jul ay agent yoo xam ne dañuy xool fu ñu defewul fu ñuy defee lu ñu wut a defe ñu ne leen lii du nii nii la bu loola weesoo commission boobu war nañoo jàngataat niñ doon màggale ñaca na ci aw yoon ñu ne leen waa leen góor yoon waa ngi noonu ñaca nekkut ci aw yoon mënati ne leen dut baaraam ni ma ko waxe ndax da ngay gis kilifa gu toog góor ñi di dugg ci géew bi di fecc ba ak kilifa ga door a dem toog man na xawma loolu moom am naa ca kumpa xam naa ñoo ñu gindi ma ci ndax xawma noonu la ñuy yëge yàlla wala xawma noonu la ñuy yëge sëriñ bi xawma lu mu doon waaye li bët di maye nopp di ko dégg yaakaar naa ni am na lu gën a rafet loolu man ci sama gisin ak ci sama déggin te ñoo ñu koy def ñëpp nag ñun xam lañ te ñëpp it mën nañ cee teg baaraam ndax ku ku ci ne boo xoolee image bi ni ma toogee fii di waxtaan image bi di jël nit ñi toog ak li ngay wax loolee noona la mel ca béréb yooya te nit ñu bari ñoo mën a yem ñu ci bari seen xam-xam demut fenn ni ma ko waxee léegi te sëriñ bi kat daf daan wax ne yéen waxambaane yi su leen ragalee gàcca na ngeen jiital xam-xam ci jëfe ko ngir yàlla ndax na ci po na ci caaxaan kat ba wuy ji sa borom ëpp naa def ci ab jaam ndax yàlla moom fa wut fa lu wut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa wut fa lu wut sëriñ Tuubaa it ca tànk yooyu dong la aw bari na kat fi mu ne kuréel yuy wax ci kuréeli mutasawifoona yi la koy waral dafay ne ci sunu biir te duñ ko fexee seppi sepp gu wér ba ku ca nekk ku nekkut ca la nga war a nekk ñu xam ni diw mii kat néew ca la mu war a ne waaye léeg-léeg da nga ci gis ñenn rek ñu ñuy ciblé bàyyi ña ca des te ñu ngàbb seeni bët di xool nga yor seeni xel di xalaat danañ xam ni lii lees war a wax la te wax ji buñ koy defit ñëpp lañ ca war a maasale waruñoo wax ñi bàyyi ñi waruñoo wax ceet bàyyi kee kon jataay yu mel noonu lay waral yu bare bare bare ñeneen di ko wax ci sunu biir la te léegi ki kër kër goo mën di dem ci këri diine ci Sénégal gi loolu dafay fees del te ab sëriñ nag sayekatu njariñ la war a doon ab sëriñ mooy sayekat njariñ koo xamante ni foo toogee ci moom da nga dolliku ci sa digganteeg sa borom da nga dolliku ci sa digganteeg bindeef yi da nga dolliku ak gën a bëgg sunu borom da nga dolliku ak gën a wóolu sunu borom da nga dolliku it ak gën a doyloo sunu borom subhaanahu wa taala da nga dolliku it ak gën a wakkiirlu ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala da nga dolliku it ci adduna gën a woyof ci yow ndax xam nga ne luy jeex la da nga dolliku it ci gën a bëgg àllaaxeer ndax xam ne mooy des ba faaw. lépp luy tax sa ëllëg yéwén nit da nga ko jëlee ca barab ca ca jataay ba lépp luy tax sa tey yéwén nit da nga ko jëlee ca jataay ba waaye tey da nga gis koo xam ne man ngaa ànd ak fu ñu ne la yow kuy sa sëriñ gën a diw man ngeen a ànd ñeen fukki at ñaar fukki at fanweeri at fukki at ay at yu bari te dara lay diine joo mën a jàpp mën koo téye du ngeen ko séq boo ko xoolee ne du la ko wax yow doo ko ko laaj amaana yow jàpp nga ni rek sëriñ moom aada la fekk déedéet sëriñ li tax ñu di ko wut mooy bëgg jikkoy rafet ci ki taxaw taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dafa wax ne suñu borom daf ko yónni ngir mu mottali jikkoy rafet yi. te yi ma doon wax léegi kuréel yi yiy wax nit yi su fekkente ni da nga ne da ngay dund diine ah ka jàpp ni yow ndax am na ci loolu wax dëgg yàlla doo ko mën a tudd diine te ak sabote it nga koy bëgg a jàppee kon ka jàng am xam-xam di dund diine it. léeg-léeg loola mën na koo tuuse donte kooku it lañ koy digal it la la naqaree nga yaakaar ne loo war a mën a saafara la it saafaraa ko ci xam-xam ak xel te bañ koo saafara ci dënn lu am solo lay doon. yow mii nga xamante ni yaa ngi doxale noo xee jàpp nañ ni waru doxale noona it soo déggee ku lay songu it yow it tontu ko ci xam-xam te bañ koo tontu ci fitna ndax am na ci loolu it suñ ko wëttuwut. mën naa juri fitna joo xamante ni kenn man mën naa xam fu muy tàmbalee waaye doo xam fan lay yem mooy tax ba ci loolu fi mu ne tey ba ci biir ñi bokk wenn yoon sax ci tarixa yi da nga ci gis ñoo xam ne dañu mën a di koo kilifa gi su bàyyiwut xel ci yar ñoñom ci jikko ju rafet bëgg leen a won ni kële niwut ci dara man maa ne ci dara day jur fitna rek ndax kenn ku ci nekk ñaan ak moom déggal nañ ko te koo ci gisit lam nekk it màndi na ko ndax fi ne ñii may wax nii yëpp nga xamante ni folklore bu leer dangay xam ni ñii ci la ñu nekk fii ne am na ñu ca nekk ak ñoom nit ki nag yaay am ak xàmmee am ak ràññee ndax dama leen di faral di wax ne bokki taalibe yi seenu dox jëm ci yàlla ak ci yonent bi sëriñ bi bu leen ko natt ci sama jëmm déedéet dangay natt lan laa dollikoo ci ci bi ma ànd ak moom ak léegi ci jikko ju rafet ci nangoo jaamu yàlla ci nangoo jéggale ci nangoo jéllale ci fonk samay waajur ci fonk samay dëkkandoo ci fonk samay nawlay jullit loolu mooy li am solo ndax kilifa loolu lañ koy doyee waaye doyewuñ ko rek ak par parloo te léegi loolu mooy li yaatu lool kenn ku ci nekk daanaka la ngay xool ci sa kilifa sayir rek lay doon kër ga wata ba col ga mbooloo ma yooyu rek ngay xool fekk jikku nga àndeek moom àndewu ak moom yooyu yëpp ànd ak moom gi mooy fas yéenee dolliku ci jikko ja rafet fas yéenee dolliku ci yittewoo lépp lu lay may ngërëmal yàlla lu koy sabab nga di ca dox di ca wax di ko melawoo lépp loo xamante ni dana sabab merom merom sunu borom nga di ko daw ci wax wala ci jëf wala ci yéene kon maa ngi dénk saa bopp tey dénk bokki taalibe yépp ah nanu gën a góorgóorlu jamono toll na foo xamante ni kat dem na dayo li may leen li may faral di dénk saa bopp te di leen ko dénk réseaux sociaux yi nañ ci wattandiku commentaire yi sëñ bi da nga ci gis ku am commentaire boo xam ne moo koy naajal bis penc ba de moo ko fa yàggal de sa yoon nekku ca nit lu sa yoon nekkut maandu ca kenn ku ci nekk it ayibam doy na ko man fexe ba li ma li li ma naqari ci sama bopp ci jikko ci melokaan ci jëf fexe ba teqali ko ak loola man doy na ma sëkk soxla waaye li ko wolof di waxee téye sëb kilo di lijjanti génn wàllu bërëb jàmbur loolu mën naa ñàkk ci ab jullit te nit ñi ñi mel nañ wax luñ xamut lool ba ba attan caa waat te dara du ca dëgg nit ñi ñi mel nañ ak naafiq ñi mel nañ ak rambaaj ñi mel nañ wax du leen luñ xamut dara yow nag nga topp ca ñoom rek fu ñu dox jëm nga dox jëm fa fu ñu wax jëm nga wax jëm fa ah gënul de kenn ku ci nekk ëllëg yow dong ak sam pax la lu wax ci bari bari bari bari bari kenn ku ci nekk ak sam pax la boo jógee ca pax ma wa kulluhumu aatihi yawmal xiyaamati fardan ku ne da nga wéet ak yàlla ba jàpp ni yow dong mu la bindoon lu yéwénal sa taxawaay boobee nag kum doon ci nun war na koo doy sëkk yitte war na koo doy sëkk soxla waris na ci ayibi jàmbur yi di luñutu ak a luqatu ak na ci problème jàmbur bàyyi say problème nit ku man di doon jëfam moo yàlla la ëllëg yow man xiyaam kenn ku ci nekk say jëf yaa koy yann ci sa bopp ñu ni diw nga nele ahmadu hajara dee nga nele di dikk moo ki jëfam mu yanu keneen noonu keneen noonu keneen noonu fexe nag ba say jëf dëppoog ni yàlla bëgge ku mu doon ci nu nag war na koo doy soxla ndax jikko yi may waxtaane rëy añaan njistal wax lu du dëgg fi mu ne nit ki def yitteem ba yooyu mu mu ne ci moom muy jikko yi rafet yi muy woyof yéene ñëpp jàmm di wax dëgg lu waaye am nga yéene ko ko ngir jëm yàlla fexe ba xeex ak yooyu war na laa doy sëkk soxla ci sa bopp wa def ne ci ayib jàmm te nit kat fi mu ne dana def ab safaan day mujj am ca yi wudul jeex te moom ab safaan la defoon de lu ko waral nit ña ŋàmb seeni làmmiñ di ko tudd di ko tudd di ko tudd li nga am ci yiw yépp yaa ngi koy jox kooka kooka lam def lépp jël nga ko moo ne moom ab safaan la def ñëpp di ko soow de waaye moom de amee na ci yiw wurul jeex mukk mukk mukk mukk mukk moo ne yow de yaa ngi sëggoon ci di def lu baax waaye li nga doon def ci lu baax lépp ñàkk nga ko ndax lan safaani jàmbur yi nga topp rek di wax di commentaire ci loo xamut di wax ci bindee fi loo xamut di wax ci nit ñi loola dara leerut mooy tax li may wax waxtu ne it nit it suy jëf lu baax da koy fexee denc na ngay dencee sa lu baax booy def lu baax da nga cay boole noppi bul gis sa bopp bul gis say jëf te adduna lu tëradi la nag te lu rey mën naa xew day soppaxandi ko de nit man nga koo gis mu doye di ba mel ni man nga di ko xeeb te fekk mi ngi ci mi ngi jëm ci ngëneel yu dul jeex nit man nga koo gis nga naw ko lool te fekk mi ngi jëm ci doye di xamoo ci dara bul ndokk kenn ndax li ngay ndokkoo nit amaana sëb cëri nga ca te yaa ngi dox jëm ca de te xamoo ci dara ndax kuy dund te déegoo la waxub lu ne nga lu ne la lu nee la mën a dal lu nee la mën a dal loo gis mu dal nit rek nga di ko yéem benn nga di ko ca yërëm wala nga amee feebaru xol di ko ca ndokk ak naan gaddeeg ñaw fekk loola day sëb cëre nga ca yow te xamoo ko nit it kenn xamul jëf ju ko yóbbu aljana mën naa bañ a xamit jëf ju ko yóbbu sawara nit ma nga ca baar ba bu la neexee wala ma nga ca leneen lañ jàpp ni lu doy doy doy di la te fekk nituk aljana la de nga gis nit mu taxaw jàkka ja lool foo ko gis ma nga kuru sama ku jukkéem te fekk nituk safaan ba la de ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni nit dana jëf-jëf yi waa aljana ba senn saa dese ko ci kaw suuf mu jëf-jëf yi waa safaan ba dem safaan ba ndax bind gi ko ci suñ borom bind nit dana jëf-jëf yi waa sawara ba benn saa dese ko ci kaw suuf mu jëf-jëf yi waa aljana dem aljana ndax bind gi ko ci suñ borom bind moo ko xam nun ci lu ci ci lunu suñ borom bind kon yaakaar rek la ñuy am ak jéem a góorgóorlu rek naka la nu war waaye yàlla moo xam nam nuy def ëllëg ak na muy jëflanteeg ñun ëllëg waaye kenn ku ci nekk ci yaa ngi bëgg a àtte sa morom léegi te bis penc taxawut kii mi ngi weddi kii nañ kii dub jullit kee ma ngay weddi kee ne kee dub jullit kee ma ngay wax ci bokkum jullitam yi lu ñaaw lu ñàkki teggin kee ma ngay xaw yi sutura si bokkum jullitam mële kenn ku ci nekk ne ni kii bis bu ko yàlla jàppee du doy loo ci xam yow da ngaa xam bu la jàppee nu mu lay def loo xam ci sa bopp loo xam ci sa ëllëg mooy tax nañuy yërëmante nañuy dimbalante nañuy suturaalante nañuy jàppalante ngir jëm yàlla te ku ne di rafetal lu man ci digganteem ak boromam ak ci digganteem ak bindéef yi te yàlla rekk tax ndax ni ma waxee léegi adduna dafa tëradi de léeg-léeg nga gis nit nga romb ko suñ borom dogal mu yore benn tànk nga di ko xeeb te yow ci ñaari tànk nga jëm ñàkk ko yaa ngi jëm ci ñàkk ñaari tànk te xamagoo ko de nga gis ku suñ borom dogal mu yore benn bët nga romb ko di ko xeeb yow yaa ngi jëm ci ñàkk ñaari bët nga gis ku ñàkk benn loxo nga di ko xeeb yow yaa ngi jëm ci ñàkk ñaari loxo nga gis ku ñàkk nga di ko doy dal ngir jàpp ni kat jamono bii am naa daraja am naa am am yaa ngi jëm ci ñàkk bu tar teg ci ak wér gi kee ma nga jëm ci am akub wér loo ci xam mooy tax nit ki foo man di toll bil gis sa bopp ci àdduna foo man di toll bul xeeb kenn ci àdduna ndax réere sa mucc kenn xamut ci looy mucc àdduna rafetal rekk ci am solo na nuy góor góorlu ci rafetal yeesalaat suñu yitte peq ci yéenante jàmm di ko waxalante di ko jëflante ngir jëm yàlla loolu kan mooy tax guddi gii buñ ko màggalee mu am njariñ waaye su fekkente ni kenn ku ci nekk boo yéeg boo tegee sa benn loxo yëkkati sa benn tànk gaa yi xëcc nañ bi ci des lan mooy seen yéene detteelu ci suuf rek gannaaw yéeguma kay kenn du yéeg loolu la nit ñi doxee de gannaaw owuma kay kenn du am gannaaw doxuma kay kenn du dox na lépp yàqu bu dara baax ah nañu xoolaat suñu bopp nag jullit kët day rafet jikko jullit kët day wax lu baax jullit kët day jëf lu baax su ko rëcc rëcc dabee it mu dellu ci yàlla boromam ci jéggulu ndax ñun ñëpp ay nit lañ te nit day def yëfi nit leeg-leeg nit dafay juum waaye lan mooy matu nit mooy foo defee njuum te nga dëpp dellu ci yàlla te bañ a tàyyi bañ a yuqat lu rëcc rëccee bari bari bul tàyyi mukk ci tuub ak jéggulu nañu fonk julli am na solo de am na njariñ de gannaaw ban bi mu bindee suñu jëmm dana tax melawoo wii muy xëcc yeneen muy bakkan muy bànneex ndax yooyu yëpp ban ak ndox bi mu nu bindee te moo noo bokk fu mu nu binde nit ci suuf la jóge ak ndox yi muy bànneexoo yëpp it ci suuf la jóge ak ndox kon faw ñuy xëccante nañ fonk julli julli mooy lan ah boo demee ne yàlla maa ngi nii de yow rek yaay aji mat yow rek yaay aji màgg yow yaay borom yërmaande ju tàmbaliwul fenn te yimuwut fenn man de jàmbur doy di laata xeebu ba àgg ci lool li may def lépp day du sama bëgg-bëgg te newut ci sama xol ban beeg ndox bee ma tëree maa ngi lay ñaan nga tëbb ma kattanu mën a wattandiku ma man a man a jëf maa ngi lay ñaari nga tëbb ma kàttanu mën a wattandiku ndax aw ma kàttan aw ma pexe yow rek yaa ko am su boobaa de julli dana am njariñ lool li ma def lépp de sama mat di rek la waaye bëgguma ci dara melo yu mu bind rek la waaye dara gënalu ma ci xam naa sax màgg de xam naa sax kawe de xam naa sax sell de màggali woo kenn kawe woo woon ak kenn maa ngi ni di sax njaam rek di sàkku njëggal ak yërmaande di sàkku ngëneel ak tawfiq di sàkku it mujj gu rafet di sàkku it gën a dëgër ci saraatal mustaqim di sàkku it nga dox ci sama diggante ak seytaane di sàkku it nga dox ci sama diggante ak bakkan ak bànneex loolu yaakaar naa ni jullit bu koy def juróomi yoon ci bis bi suñ borom dana la wuyu te da ngay set wecc it nag ndax dañoo wax ni diggante julli ak morom ma wala nga ne juróomi julli yi mi ngi mel ni waxtu wu ne nga tilim dem sangu ba set ci bu ko nit ki doxalee nii nun nag ñun ñëpp li ci ëpp suñuy julli jullik aada rek la ñuy julli jullik na ma wàcc rek lay doon maa ngay waaxu daal di dem ci jàkka ja ak a dikk diggante bi ngay dem ci jàkka ja sax man nga fay jëw nit man nga fay wax lu dëgg léeg-léeg sax nga jël fa yëfi jàmbur aka wax lu sa yoon nekkut soo ñëwee boo ne allahu akbar yaa nga ca marché ba yaa nga ca kër ga yaa nga ca business ba yaa nga ca soxna ya yaa nga ca yaa nga ca yaa nga ca yaa nga ca ci yu dul jeex ba ne asalaamaaleykum loolu lu ca yàlla am dara waaye dañoo bëgg nii ma waxee léegi soo ne allahu akbar lu dul yàlla woyof ci yow nga teewlu ko teewlu nga ca mat sëkk kon guddi gii nu bokk nekk suñ ci dajee nun jullit ñi lanu war nun ñëpp mooy fàttalante jikko ju rafet te réew mii nu nekk nag réew mu naqaree ne la ni ki réew mu neexa ne la ndax këru diina goo dem xëccoo yaa nga fa jàppante yaa nga fa defante yaa nga fa te nit ñi loolu lépp duñ ko teg ci jikko par par loolu dong ci lañ koy teg sëriñ bi daal moo ma neex rek waaw sëriñ bi moo ma neex rek waaye jàppeetuñ sëriñ jikko jàppeetuñ sëriñ it ab yarkat ci diine koo xamante ni dafa war a wiññi dindi ci yow bépp jikko bu yàlla gërëm mu def ci yow jikko yu yàlla gërëm defal la li ñuy wax taxal lii ak taxal lii rikk ci yow wépp melowu yàlla gërëm mu takkal la melo yi suñu borom bi subhaanahu wa taala gërëm loolu la ñuy béyee sëriñ waaye léegi kenn ku ci nekk yaa ngi farfarloo ci sa kër diine keenaan nu nangam lan keenaan nu nangam lan keenaan nu nangam lan te moo ne baax day mën naa doon gendu baax ni ñuy dégg diine nag mën naa wóote la ala kulli xaal loolu ba keroog addunay tukki li ma waxe léegi faw ak wuute di am waaye nag wuute googee nañu kenn ku nekk nay def pexe ak daje mën a am boobu te bu bu bu suñ diggante defoon nii kenn ku nekk di di jéem lu mu gën a mën a jege ñu di ko def ndax fi mu ne da nga gis jullit boo xamante ni fii du mën a mbokkum jullitam te day mën a ko kerete ku dul ab jullit day mën a moom bu baax di ànd ak moom ne diw sama xarit la te du mën a doon ab jullit te kii bi sa mbokkum jullit mënoo ci moom dara mënoo ci kooku dara yooyu yépp ah manqué te jullit lay daal di bëgg a doon te li ma waxee léegi diine ngir jàmm la fi mu ne ki nga bokkulu diine sax mën nga koo bëggal li nga bëggal sa bopp feeg jéemu la indi ay gàllankoor ci sa pas-pas réew mi ñu dëkk dëkk feeg suñuy bokki kerete ñépp lañu war a yéene jàmm ndax seen jàmm suñu jàmm la suñu jàmm seen jàmm la réewi tubaab yi sax seen jàmm suñu jàmm la seen musiba it suñu musiba la lañ dund ci Europe ak ci Amérique ak ci yeneen réew yu ay jullit ci jullit ci Sénégal kenn xam na nu toll la ñuy yore seen njaboot yëpp mbaa ñu di koy joxe addiya mbaa ñu cay def leneen loolu lépp foofu lañ koy jëlee foofu bu ko jàmm amul duñ mën a am lool te loolu day daal di jeexital ci ñu nekk fii kon nañu yéenante jàmm te di ko wax lante di ko jëflante ak fu nit mën na féete te jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala rek tax kon maa ngi dénk sa bopp te di leen dénkaat muy jullit ñëpp jaam bu doy di lañ doy te xeeb waaye noonu am yéene di bëgg lu baax di ko yéene di ko yéene jëf suñu kam kàttan te di ko dénkaane bokki taalibe yi bokki jullit yi nana gën a nanu gën a sax ci dëggu nanu gën a sax ci ak dëggu ànd bi loolu mooy njariñ bi de li ñuy dénkante fii ñu ngi ko jàpp te di ko jëf te jëm yàlla tax sax ci dëggu wattandi ko di wax lu du dëgg te yomb na nit ñi léegi lool ni ma koy waxee waxtu wane te du ma sonn ci di ko baamu du ma ci tàyyi mukk nit day dëggu nit day wax dëgg nit du war mbokkum jullitam nit du war mbokkum taalibe nanu dëggu bu kenn wéet di wax ci sa morom ab safaan ànd bii ñu ànd ngir yàlla kenn ku ci nekk la koy jëme kanam na koy def na koy wax na koy melowoo waaye boo toogee fee naa ñun daal nangam ak nangam wala diw daal nangam ak nangam loolu du war du war a garu ab jullit du war a garu nit ku baax nit ku baax day wax lu baax wala mu noppi soxna yi maa ngi leen di dénkaat nañu gën a góorgóorluwaat ci sëy yi tey muñ sëy du bànneex adduna muñ la laaj de am na solution yoo xamante ni muñ dong ngay saafara si am na problème yooyu solution si solution solution ba muñ rekk la leneen loo def lu may muñ man ngaa dee ci fitna te loola du saafaraw mooy tax nañuy muñ muñ dafa am solo sëy yi tas bari na jafañ-jafañ yi tas yi am bari na te da ngay gis ko tasub sëy ba noppi na ci lu gën a yées sëy ba mu nekkoon la nga doon xeeb ci sëy ba lu ko gën a bon fop ngay am lu ko yées fopp ngay am la nga doon bañ a nangu ci sëy ba yaa ngi koy nangu feneen ci maali foro nag mooy tax ku ne ci sëb sëy jàpp ko te nga muñ te yàlla tax xam ni sëy jaamu yàlla la naqar wala cay dal ci luñ lay wax wala ci luñ lay jëf aw yoon law jëm ci yàlla soo ko muñee ngir yàlla nañuy muñal seeni boroom kër nañu gàttal seeni làmmiñ gàttal seeni tànk tey na ci digal tey teg tere ya tey yaatalit nag te yàlla tax góor yàlla yi nañuy muñal soxna yi nañ leen di jéggal nañ leen di yërëm nañ leen di yiir nañ leen di taxaw te di leen jéggale góor wurut def fu mu jàppanteeg soxna sa soxna si ne ko may ma baat rek mu daal di gis boppam ne ko may naa la ko déedéet bul ko def soxna du gaaw a ñaan baat waaye góor du gaaw a fase góor day muñ ku tàmbaleeg wax sa soxna génnal bàyyi ko ca kër ga mbaa nga noppi waaye góor du benn beleen te jigéen su jigéen ja waxee benn nga wax fukk loolu di su ko def te xuloo nag des koy yamal te rafetal ko ku ko man xëy na xuloo sax mun ta rafet waaye nag lu waaye man ca rafetalu xuloo baax na ca de ndax ëllëg juboo baay tax mooy tax nañuy muñ ndax soxna yi léeg-léeg dañuy mer rek yow góor gi yaay am com yaa leen di comprendre léeg-léeg ñu mer nga takk soxna ñu mer tàng da nga ma fase lu ne ñu def ko waaye dara boo muñee noppi dal xam ni bëgg la rek a tax ñuy def loola loola day daal di weesu jigéen ñi du caa génn ku ci am wujj nga defee tuskare naa yàqu naa déedéet lu baax des koy bokk waaye nag góor it nag del dugg ci loo man ak a wax loo man kuy boot ay kuy boot gëdd kuy booti gamm xaw ma kuy boot gëdd la woo bëgg a booti gamm ah munta nekk boo yoree soxna da nga koy caral suturaal ko dimbali ko bu taraa nga ja gën a yaat nag ah ngay xajal ca keneen ndax rang gi dafa xaw xat jigéen ñi ngeen yaatal kon waaye góor ñi seen birit ngeen teg ko ci yoon danañ ci baax lool waaw góor day muñ góor day jéggale góor day jëllale góor day yanu métti day yanu tiis ngir yàlla loolu lu am solo la waaye sëy yu bari la koy waral mooy ñaari gone yu ko séq te ay mag ñu leen di tër dëfal nekkuñu fa su koy meree ni may ma sama baat kee daal di bëgg a mer ne ko may naa la ko sama baat kee la mu wax mënu ko kii li mu wax mënu ko loolu des koy sëy fase kenn du ko def ci mer nit bala ngaa fase waroo koo def ci benn mer lu man de xew sa digganteeg sa soxna defal tekk boo demee ba toog ba xalaat ne man de wax dëgg yàlla kii bëgg na maa ànd ak moom ngir yàlla waaye ànd gi defe naa ni fitna rek moo ciy jóge waaye jàmm jógewu ca te sëy jàmm tax ak dal nga xalaat ca bu baax a baax a baax a baax bala nga koo def dafa am solo lool jigéen nit noonu ndax li ma wax léegi rek góor ñi it góor day woyof góor day wax boo nee sa kër mel ni gaynde te boo génnee ci mbedd mi ñu lay reeloo ko lu ne ñàkk fayda yu ne nga di ko def mën naa ñàkk boo nekkee sa soxna mi soxna si daboo sa bànneex yow it noonu nga war di daboo bànneexam góor it du rëy jigéen moo war a gën a woyof waaye góor it nag wërta rëy wërta rëy bu soxna si toggee lu neex nee ko ah soxna si tey de moom tabaarkàlla bu solee lu rafet nee ko ah soxna si tey moom tabaarkàlla loolu dafa am solo gis nga kàdduy cofeel day dundal ak cofeel ah waaye kàddu gu naqari day jur ab safaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii ñu tax ñuy màggal guddi gi kaf ak reeg lépp la daan def ak soxnaam tungoom sax da leen ko daan def mënul ñii de fii ne ku ci newoon sa soxna nijaay tungoom ma mbaa sëñ bi tungoom ma nga ne ko yow danga maa yëpp lu tax nga di ma wax loolu moo yow ngeen di mbindéef mi nga ne mooy ngeen di mbindéef mooy sa kilifa da doon tungoom soxna nit bul bañ a tungoom sa soxna kat léegi-léegi dàqante leen ci kër gi sax xaw a wàññi gerees bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko doon def de kon yow looy rëy ci def ko lu sa kilifa doon def looy rëy ci def ko moo ne man day fii ne su may bëgg a génn su ma génne woon ñaari yére bu ko sol bu fa soxna nekkee bu nee ma sëñ bi solo lii lam wax laay sol de bu ma norta def dara sax li nga xam ne su ma ko defee sax gis ni dana leen neex sax mën naa koo def ngir yàlla loolu am solo la nit day woyof as gor du rëy nit day woyof toy fonk set ak jullit dafay set ci say sir set ci sa béréb set ci sa yaram loolu it lu am solo la xet gu neex day bijj ak cofeel xet gu naqari day bijj ak noonoo mu fonk set jiital ko ci xol yi mu ñëw ci yaram wi ñëw ci col bi ak jullit dafay set wecc ci fan yépp fonk xet gu neex xet gu sell lu am solo la ndax bëgg àdduna ni ku ci col de am na waa jooju li mu bëgg lépp li muy wax na muy melowoo lépp daa amul rek gis nga nit bala ñoo xam ne kii bëgg na àdduna wala bëgg ko xol rek kay àtte loolu xol rek nga mën a àtte loolu ndax fi ne nun ñii téeméer nit mën nañ fay nekk kenn ku ci nekk ak na muy doxee ak na muy waxee lam ca yéene ak lam ca jublu moom moo ko xam kon bëgg àdduna ci xol la dëddu àdduna yi ci xol la nit ki li muy def lépp na ca jublu ak sant yàlla ci li ko yàlla defal bañ caa jublu puukarewu bañ caa jublu ëppalante bañ caa jublu ndabo bañ caa jublu xeeb kenn bañ caa jublu ñii laa toll nit ñi nag moom lu ñu la man di njortal ak lu ñu la man di xalaatal sa njo sa sa yëq yu bopp na gën a wér loola te bañ a bàyyi xel nit ñi nag la ñuy wax la ñuy roomandaat ak yooyu ñuy def bu sa yoon nekk ci loola yow li nga li nga xam ci sa bopp dund ko ci sa bopp na gën a wér ci yow lépp kon maa ngi leen di dénk lu gën a góorgóorlu bu baax te gën a farluwaat bu baax fonk jàng alquran fonk jàng xasida fonk tudd yàlla fonk woy jur yi fonk dëkkandoo yi loolu maa ngi koy dénk sa bopp te ñu ko dénk nangoo liggéey as gor day liggéey benn liggéey it mëtt xeeb nay lu dagan as gor day liggéey bañ a topp di ci leb bu të dëkk te doo fay bor bañ a topp ci si si booru nit ñi ñu di la dawee daka xeeb as gor day nangoo liggéey mooy tax nga mën a téye sa ragal yàlla mooy tax nga mën a taxaw sa wéyjur mooy tax la ñuy jëf ci lislaam yi nga mën caa jëf kon nañu fonk liggéey nañu bàyyi xel ànd nit koy àndal dee ko seet ndax nit ku man di doon kooy àndal lu mel ngay mel nit ku ne it lam lay digal ak lam lay la biire dee ca bàyyi xel gis nga gone gi ne ci koñ bi nanguwut a jàng bu soñul gone yi kenn du jàngi mooy tax ñàkk jàngam googu yi ak ñàkk dem école am googu yi di feeñ waaye bu ñëpp xëy dem jàng muy tucc ci biti du am kum fool du am kum waxal du am kum àndal def lenn te su booba ay ayubam day daal di feeñ kii takku ba dëgëri fas yéene dimbali ñaari way juram kan ne ca bakkanam ne ca bànneexam bëggut a defal ñaari way juróom dara ba sañoon it kenn du leen defal dara ndax mooy tax ñàkk defam googee feeñ moom tamit paa bi dafa sonle paa bi dafa bëgg lu yomb paa bi lu bëgg kenn mënu ko maire bi lu bëgg kenn mënu ko rek la koo koy jàppoo bëgg a découragé ka nga xamante ni moom mi ngi daw ci li paa bi bëgg ak ci li maire bi bëgg loolu mën nga koo jël ci fànn yépp mooy tax nit ki ki ngay àndal nay ku lay dolli ci pas-pas nay ku lay dolli ci jikko ju rafet na nay ku lay dolli ci lu baax boobuñ doon woote ci lu baax sax ka ka fasut yéenee def loola bu sañoon kenn du ko defit ba tey ndax mooy tax ñàkk defam góogee feeñ am na jikko yooyu fii ne bu ko nit ki amee wala natt yooyu bu ko nit bu dalee nit ci koñ wala ci dëkk wala ci mpénc kooka it ba sañoon natt ba dal ñëpp ndax yëfam bañ a feeñ loolu du war du war a góor ab jullit jullit bu la yàlla tegee nattu muñ ko xam ne lii yàlla moo ma ko teg jullit ña ca des it ñu muñ loo ko te defal ko te ñaanal ko yàlla njéggal te ñoom it ñaan yàlla musal leen ca natt ba dal kooka yow mi yàlla teg natt ba it nga buñ ko te rafetal muñin wa te yàlla tax te bul ko yéene benn jullit bul ko yéene menn mbokk bul ko yéene benn dëkkandoo kon noo ngi santaan ñëpp bokki tali bi yëpp noo ngi leen di sant seen taxawaay bu rafet comme li ma wax léegi rek ah jataay bi yaakaar naa ne bu ñu fi waxee genn kàddu rek ñun ñëpp nu bokk ko jël jariñoo ko man nañ caa jariñu ba diir bu yàgg kon noo ngi sant ñëpp nag bokki tali bi yëpp taxawaay yi weesu ku ci ne nañ ca taxawe xam nañ ko yëg nañ ko ba ci guddi gi nu nekk màggal gi ni weesu ak gis yi ni weesu yëpp jëf yi rafet na matale na taxawaay yi rafet na matale na muy ci góor ñi muy ci soxna yi muy ci mag ñi muy ci ndaw ñi am na liggéey boo xam ne it bokki taalibe yi tàmbali nañ ko di ko def muy loo xamante ni waa waañ wi ñoo ko daan def def nañ ko ci cant gi ni weesu def ko ci màggal gi muy jëf ju rafet ju matale tamuy loo xamante ni mën naa woyof ci ñëpp te ku ci ne lamante tëliwu ko su ko ca defee ngir jëm yàlla mën naa gën a taw feexeel liggéey bi loolu ngeen xam ne jëf juma ànd la te jëf juma rafetlu la te ànd gi dama koy jëf du doon lu may wax rek waaye damay bëgg ñëpp xam ne lu ma ànd la lu ma rafetlu la te lu ma bégale it ndax loolu mooy tax liggéey bi woyof ci ñun ñëpp jotuwut ak dara kenn ku ne na nga daan jëfe lii moom ak jaayante la buñ teg nee képp ku ko mën nga def ku ko tële it waaye falal nañ la ko gawuñ ci kenn maa ngi koy rafetlu di ca ànd ak ñoom am na nuñ koy doxale ñoo xamante ni nag léeg-léeg nga dégg ko naan dama cay ragal lii dama cay def laa dama cay ragal lii dama cay ragal laa déedéet ndax mbooloo suñu àndee di dajale seenu ñaq war naa leer ca mbooloo ma yëpp kooku mooy dëgg ku ci nay la ngay joxe bu dee dërëm la mën naa kawe boroom ñaar dërëm ya bu dee ñaar dërëm la it mën naa kawe boroom fukki dërëm ya mi ngi aju ci yéene rek boroom fukki dërëm yi it mën na ëppale boroom dërëm ba na nga ko ëppalee ca wet googu waaye ku ci ne la nga cay def na yàlla rek tax loolu it noo ngi koy rafetlu te di ci soññ bokki taalibe yi ci ku ko man laa wax de nu bokk ca ànd ak ñoom ndax loola dana woyofal yu baree baree bari ci liggéey bi ndax ñoom natt nañ ko ndax man ci ci cant gi natt ko ci màggal gi bi màggal gi jubee nag biñ dikkee wax ma ko ak ne mbir ma tëddee ne ma dañ koo bëgg a yaatal ñu leeral ma lépp it dama caa daal di ànd ak ñoom àndin wu rafet ànd mooy ñuy jëf diiwaane yi it yëg naa ko ci diwaanu Kër Mbay Fall bii ne ñoom it ñu ngi doon def loolu loola it maa ngi leen ciy sol bu leen ci dara mën a jële bu leen ci kenn jële lu ngeen ca doon def na ngeen ci yokk seen yitte lu baax kenn deful ko kenn ku ci ne sa bopp nga ko defal kenn defulu ma ci dara kenn ku ci nekk la ngay def ngir yàlla sa bopp nga ko defal nit ku ne nag ni ma ko waxee léegi ci biir la lay dolli ci sa pas-pas bul ca diglu ma sàmb bul ci diglu ma demba képp ku lay wax loo xam ne luy wàññi sa pas-pas la foñ ko te ne ci sa pas-pas yow duma la wax lu ñaaw duma la ko delloo waaye nag danaa am ak woy ak mat goo xamante ni la ma war a nekk man danaa ca nekk loolu it maa ngi koy dénk sàmm ko kum man di doon fii nga tàllal say loxo lii ma wax it mooy samay wax moom lay diggal ñëpp it muy kuñ jàppe jëwriñ ak kuñ jàppe leneen jëwriñ du ngeen ci gis ku man di doon imaam bu nekkee ci jàkka jee te defuut na mu war a defe kay julli yow fexeel sa julli rafet fexeel sa julli jàkk jëwriñ ko du tàggeen mooy looy def boo demee wax ko ko lu mu la ca wax nga jàpp ko déedéet lu mu la ca wax natt ko ci samay wax ak samay jëf su dëppoog loola nga jàpp su noppee dëppoog loola teg ko fa te ñëw ci samay wax ak samay jëf loolu it maa ngi koy dénk ñëpp ànd bii nu ànd it wutuma ci wéttal loolu la leen leer ragaluma ci wiit forcé wuma ci kenn it man wéttalikowuma kenn ku dul yàlla ba kenn képp ku àndeek man dama ne ko feek maa ngi lay digal li yàlla digleeg yonente bi ak sëñ Tuubaa den dugg ci den ñëw ci man su ma la ko noppee digal dëppal man foofu laa nekk de képp koo xamante ni dama koy wax di ko wax di ko wax koo xamee la lay dolli ci man la nga yaakaar ne moo lay dolli ci man wala la lay wàññi ci man ci kenn la nekk demal toppi kooku te woon ma gannaaw man kat wutuma ku ma tagg ragaluma ku ma ŋàññi xooluma ku ma woon gannaaw xoolu may jëm si ci man ku dikk daal ma ànd ak yow jëm ci yàlla te dana ma wóor ni boo dëpp taxawu gisoo danaa la maralek sunu borom subhanahu wa taala kon nag nanu bokk ñun ñëpp di góorgóorlu kenn ku ci nekk ngay mag ngay ndaw koo mën di wéetal dee ko wax lu koy dolli ci pas-pasam dee ko wax lu koy dolli yitte ndax nit ñi fi mu ne dara umpewut koo toogal ne ko del defe nii defal nii defal nii defal nii na la wóor ni la nga koy wax moog nga toogoon ci jataay bi yokk ñoo yem kenn kon ñun ñëpp nañ bokk di gën a góorgóorlu te gën a farlu liggéey boobu noonu ñu ko doxale it nga xamante ne xëy na lu ci nit def dañuy génn lépp leeral ko ak leeral dong bu leen ci jublu leen tegu ci ndax man lu lépp waxtaane nañ ko man ba ma dénk leen ci la ma leen ci war a dénk wax leen ci la ma leen ci war a wax lu ci nit di def daal na yàlla tax koo gis ku gis ni nag loola seene na la doxal na nga daan doxe te bàyyi noonu ñu dox ci seeni dox ndax loolu it yomb na lool kon loolu it maa ngi koy dénk bokki talibé yi ak ñëpp nu gën a góorgóorlu ndax nit moom mbooloo gis nga Serigne Touba bi ñu laaj ñaari fukki dërëm yooyu ak juróom-ñett talibé bu ci ne war ko war koo joxe bëgg ñu mënal suñu bopp rek la ba duñ soxlaal kenn dara kon jaayante boobu li ñuy def it yaakaar naa ñun ñëpp buñ ci defee suñu yitte def ci suñu pëstéef muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw danañ dem ba àgg ci lépp luñ soxla da ngay tibb te kees ga rek def ca te day woyof ci ñëpp yi ndax ku ci ne yaa ngi ñàkk ci connexion par weer loolu mën a xam te gis ngeen nag bu kenn nax kenn ku demul talaata yi Moussa dem dibéeri Firawna ki ne man du ma joxe fii lii yaa ngi koy jox damay bañ a àgg ci yenn yi waaye yaa ngi koy ñàkk feneen léeg-léeg nga dégg ko naan fexeel ba diw mi ma lekk lekk sama xaalis te as ndaw dong lay doon kat fexeel ba mu lekk sama xaalis dangay seet googu womatu te nanguwoo ko womatu ci gaa yu baax ah fexeel ba mu lekk sama xaalis mas nga koo dégg ah ku ca yaa ngi sonn ci leneen kon nag buñ nee nag kaay sonn ci yàlla ci lu woyof wax dëgg yàlla war nga caa def si teg sa pëstéef boo ko ci defut def ko feneen gis nga suñu yaram yii faaw muy ñàkk ku ñàkkut ci yàlla ñàkk feneen ñàkk mënut a ñàkk kon nag nañuy góorgóorlu bu baax te loolee ñun ñëpp nu maase def ci suñu teg suñu pas-pas xel koom bii dikk na mooy tax xam naa ne ni ma daan def fii ba fajar jot du ma ko man ndax jóge naa ci ayit jëm nañ ci ayit ndax bu ñu xëyee rek dañ cee daal di dem ndax bari na ñooñ ñu ngi fii waaye dañoo war a xëy ngir waajale yoon wi maa ngi ciy soññ bokki julli yépp ak bokki taalibe bi yépp ñu def ci suñu yitte yàlla dafa bind ay nit ñu doon mu jaarale ci nit ñooñu taw fi xam jaarale ci nit ñooñu njëggal gis nga njëggalu suñu borom ci nit ñi yërmande suñu borom ci biir nit ñi nga neenal suñu borom ci biir nit ñi boo toogoon fii ci jàkka ji bayo boon ne fi téeméeri at nga sax ko fi yàlla du la fa fekk mukk saa su la fay fekk ci nit la koy awre waaye yàlla ne si fee dikk wax ak yow jëflante yow ci nit rek la koy awre la in shakartum la azidannakum jooju suñu borom bu ngeen santee ma dolli leen ci sunu biir ci sunu biir nañuy santante njëkk yi dox ci sunu diggante nit bu la defalee lu baax sant ko ngir yàlla yow miy def lu baax def ko ngir yàlla bul wut ku ko wax bul wut ku ko ñàkk a wax waaye nag ki ñuy defal teraanga nag wax nga mu koy wax ak sant nga mu cay sant dana tax ki ngay defal teraanga sant sant boo gën a suñu borom bu ngeen santee ma dolli leen kookee ca la ndoon leen day tàmbalee waaye dangay gis kuy bëgg ci yow dara di la ko topp di la ko topp keroog ba nga ko dugalalee lay fàtte lu bokk ci yow du la jotaat mukk dana am te kat doon na jënd crédit lu ne mu di ko def ngir jot la rek ba mën a wax mën laa wax soxlaam soxlaam fajo waaye ba keroog soxlaam fajoo ngay noppee dégg kook du la jotaat mukk ne laa yow kat li ma yónnoon jot naa ci wala li ma defaloon jot naa ci waaye nag kii def lu baax nag nay muñ nit ñi nañuy fexe di leen jariñ te bañ leen a lor te lor yooyu bàyyi koo ci ñoom it ñu di ko muñ ngir yàlla te damay wax ne loo ci defal nit nag nay doon loo mën a fàtte ndax nit ñi woyu ñu jëmuñu fenn su naqaree ñu war la gannaaw bu neexee ñu dikk loo ci defal tey ci teraanga nit lu mu bari bari bari bari bari bari bis boo xëyee am ca ngant dana mel ni mosoo koo defal dara waaw nit ñi mën nañ di la gott di la gott di la gott waaye bis boo leen amee njariñ day mel ni du woon ñoom dañuy wëlbatiku kay di la xalamal mooy taxit ah jëflante bu jafe lay doon waaye fii tey yàlla tey muñu rek te yàlla rek tax kon xel koom bi mu ngi noonu ñu ci soxla oto am na ñu ci jokkool bokki taalibe yi ñëpp ñoo ci xamante ni mën nañoo jaayante ngir yàlla nañ ko def luñ ca tëli man danaa ko mottali muy sama jaayante man ngir jëm yàlla ndigal mooy doxal yoon wi man de yëmuma ci sëriñ bi nenu danoo bëgg a dem xel koom dama caa bég kontaan ca sant ca am ca mbégte xam ne sama dolliku tawféex rek la ma yëkkati sama addee bopp yónnee ca moom te du joteeg dara nag ni may fexe ba liggéey ba na mu ko bëggee mu amee mu amee ca nu kawe njortam ca loola ni ma waxee léegi da ci am ñoo xam ne nit ñoo nit yàlla yoo xam ne yàlla yemalewul de teddu masa yemale nag ba keroog adduna di tukki yàlla yemalewul teddu masa yemale am na nit ñoo xam ne dañu leen di dimbali ba faw am na ñooñu dañuy dimbalee ba faw coobare suñu borom la ni ma koy waxee waxtu ne gis nga soo génnee fii am nay xaj ay këlbu yoo xam ne clinique yañ leen di faje nun ñii di ay nit di ay jullit amul ko ku def loola sunu borom ay muus clinique yañ leen di yóbbu di leen faj nun ñii di ay nit amuñu ko ku def loola ku dul yàlla da nga gis koo xamante ni yàlla jox na ko loo xamante ni mën naa dundal Sénégal te moom kenn la ko jox moom lu tee yàlla kenn ku ci nekk mu ne la sawal la ñu nii waaye day defal kay jal bu ni jàgg ne yéen ñi ci des toppi leen ko xam nga alxuraan dafa wax suñ borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko na ngeen xeex ak ñoom suñ borom dana leen mbugal ci seeni loxo noonu la yërëme it ci nit ci yeneeni nit noonu la ëmbe yërmaandeem ci loxo yi yeneeni nit jëm ci yeneeni nit yàlla du yamale mukk te du ko mas a def am na ko juddoo gut kon tam ay milliards a nga ca mbooloo wurul jeex gëm yàlla di jéem a góorgóorlu ci yàlla te tëgul ñu mën a am dara ñu ngi dee ko xiif ku ci añ doo reer amoo ndékki lu baax amoo pañ mu baax ku def loolu ku dul yàlla yàlla ci coobareem rek lay doxale ku bëgg a noppalu nag da ngay nangu coobareem rek kon lépp ci coobareem la gaa yi yàlla yooyu mu defal nag képp ku leen di liggéeyal ngir yàlla moom moo ne jullit bu ne dafa war a nekk liggéeykatu jullit ñëpp lu tax léegi buñ ne dañuy liggéey li diw am ñu naan yéen dañ leen dañ leen fanatisme dañ leen di exploité dañ leen di def nangam déedéet kenn toogut di xoole nag ci réew mi lañ dëkk te ay mukallaf lañ te boroomi xel lañ koo gis nee ko ku lay noggutu koo gis waa joo fi gis rek am na waaju am na ndaw su koy noggutu mbaa am na waaju koy noggutu maa la wax loolu moom kenn toogut ci loxoy neen kenn toogut ci yaram bu sedd ku nekkee am na luy tàngal saw yaram mooy tax nit day woy ci boppam te dëggu calam nekk te yàlla tax dafa am béréb yooyu ak jëmm yooyu bérébu nangu ñaan la bérébu faju aajo la loolu suñu borom moo ko def ni ma waxee ci coobareem ji ci lee noonu la ko ëddee ci nit ñi am na ñoon loo def ngir ñoom suñu borom mën na la caa defal tawfiq am na ñoon nag dañuy bañ di tudd kenn di tudd yàlla ah kay yàlla mooy njëkk a def loolu waman yutihi rasula faqad ataaha allah ku topp yàlla ku topp yonent bi saa topp nga yàlla moo lu te yàlla yem ci boppam rek ku ma topp yonent bi moom da ñàkk de mooy bunt bi de ku ci jaarut doo dem ndax li wax ji bari bari moo nañu yàlla nee nañu nangu de gisuñu yàlla déggunu yàlla alxuraan ji boobu tiimee di firi lu ne ngay wax yàlla nee na yàlla nee na yàlla nee na munta wér te yonent bee lay ko wax de moo ko andi de te nit la kem yow waaye yàllaa ko gënale noonu de moo la nitu la ko wax de yàlla wàccul ne kenn lenn ku may yonent bi sal sax yonent bi ne na yàlla nee na ñu jamonanteeg moom dañ koo gëm wóolu ko yaakaar ko topp ko mu ne yàlla nee na ñu ne ko yow yàlla ji ngay wax jumu ndax ñoom yàlla yiñ xamoon ci makka ay xërëm lañ mu leen koy misaal waaye misaal mi yëpp yëpp ne leen yàlla nee na mooy yàlla mi bind asamaan mooy dundal mooy rey mooy tawatal mooy raggal mooy mooy mooy mooy loolu lépp ba tey ci làmmiñam lañ ko dégg ñu dina ko indil dina ko indil ba fii nu toog ñu ngàbbu kay bi ne lii day waxe suñu borom la waaye nunu nunu xam ne ci nit la jaara de yàlla jógewul ca kaw wàcc téere de ci nit moo ne yàlla nee na ñu topp ko ba fii nu toog di ko waxtaane qul in kuntum tuhibbuuna llaaha fattabihuuni yuhbibkumullah bu ngeen bëggee yàlla topp leen ma laa wax de néew leen topp leen yàlla topp leen ma yàlla bëgg leen kon cofeel goo gii nu bëgg ci yàlla ci moom lañ ko mën a amee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nañu xam ni it loolu ñuy wax rasulullah du fi jóg ba keroog adduna di tukki leer gi du fi jóg mukk gaa yi ko yàlla def rek ñooy buntub yërmande ja ñooy buntub njëggal la ñooy buntub tawfiq ja kon nañuy sellal suñu yéene tey góorgóorlu tey watandi ko ay détails ne ci la nga war a nekk te maandu te rafetal kon loolu it noo ngi ciy soññu bokki taalibe yëpp xëy na dana am ñu dem suba ji talaata ñuy jiitu ji am na ci ñooñ it xëy na su àllarbaa ñu gont waaye liggéey bay nanu ko gisee li ëpp ci daaw mbooloo mi demuñu lu ko waral liggéey bu gaaw a jeex ren ji lañ ko gën a séentu nag te lépp day tawféexi kese la sëriñ Saliou moom la sa borom defal tawféex ku ko bëgg liggéeyal ko am ca tawféex ja loolu mbaaxu yàlla la yërmandeem yàlla la waaye yërmandee xeet wépp la kon ñëpp nu bokk bàyyi ko xel dama am kilifa gu may mas di waxtaanal génn àdduna ndeysaan mu ne man damaa amoon tawat joo xam ni jum metti la woon ju ko daan sonal lool waaye nee na tawat bu fekkonte dafa maana woo ni jëmm ju koy dàq day seetlu fu mu duggee suufu xel koom ci bu ñuy liggéeyi foofa day dutu ko gisati dutu gisati lu ci bokk te lii ka ma ko wax moo ko dund te nit nag lam lam dund maa dund nangam moom bakkan lay laaj moom nit nag loo gëm maanu cax loo yëguti neel yëguma loo xamuti neel xawma loo dunduti neel dunduma ko loo yëguti neel yëguma ko waaye diw mii li muy wax du dëgg ku ñeme yàlla la sa yoon nekku ca ku wax dëgg sa bopp ku wax leneen it sa bopp kon maa ngi yomb na su la doyee jàppal su la doyut bàyyi loolu yomb na lool mooy tax werante yi lu ci bari nit ñi loolu mën na leen caa bañ a fekk kon noo ngi ciy soññ ñëpp la ca toppit mooy ca màggal ga néewoon naa leen ah am naa yitt de yitt ja it mi ngi fi man ba tey de dara jógu ca dara wàññeeku ca kon nag kenn ku ci nekk nag léegi mu mën a jot ci yitt ji bu ko saa borom dogalee xëy na duutul yàgg xëy na nag musuma am yitt nag di ko wax ci mbooloo waaye waaye loolu sama yitt la de buñ ca àggeen ñëpp xam ko kon nag noo ngi ñaanal jullit ñëpp tawfiq noo ngi ñaanal jullit ñëpp jàmm noo ngi ñaanal jullit ñëpp sutura noo ngi ñaanal jullit ñëpp kaaraange noo ngi ñaanal jullit ñëpp jàmm noo ngi ñaanal jullit ñëpp xéewal yàlla mi dara tëwut te sunuy bàkkaar ak sunuy moy lépp mu mën koo tabbal ci géejug yërmandeem géejug njëggalam yàlla na nu ca sayal nun ñëpp ci mbaaxam ay yërmandeem ak taw kenn ku nekk lay xaajoom yàlla na ko yàlla faj te jàppandal fajin wa kenn ku ñu nekk lay bëgg-bëggam yaa ko xam te yàlla benn bëgg-bëgg du sotti ci lu mu ànd ca yàlla na yàlla far leen ci seen bëgg-bëgg yooyu far na ci sunuy bëgg-bëgg ci mbaaxam ak yërmandeem te bañ a xool ci nun dara nag lu may yërmandeem rek ak tawfeexam ak suturaam ak kaaraangeem kenn ku ci ne la bëgg ci boppam bëgg ko ci njabootam yàlla na ko ko yàlla womatal tam seddu guyyu kenn ku ci nekk lam ragal ci boppam ragal ko ci njabootam yàlla na ko ko yàlla xàjjil ba faw mu bañ a dajeek moom mukk yàlla nu yàlla def ay nit yi yoo xam ne da leen di jéggal ba faw defal leen yërmande ba faw defal leen tawfiq ba faw defal leen ngëneel ba faw ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfiqam yàlla nu yàlla defal mujj gu rafet yàlla na yàlla dox suñu diggante ak seytaane ba faw dëgëral nu ci siraatal mustaqima musal nu ci ndog musal nu ci pakk musal nu ci bépp musiba musal nu ci bépp balaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf tubaarkalla jërëjëf waaw jërëjëf